Bismillah. feebar baa ngay rey ba léegi ne la dee bos fa bi ja day ah, lu tolloog juróom ci ay doomu aadama day la rey ci ñaari fan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah maa ko wax te ñu dee tey seenu at waaw diggante fanweer ak juróom-ñaari at la tey jàpp kon juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay at ñeenti doomu aadama laa lay wax ni la yi dee ci Dakar la ñu dëkk juróomeel ba dee ca Touba la dëkk yéene kaa ne juróom-ñeent ci ay doomu aadama kon ñoo dee ci benn semaine ñoo dee ci ñaari fan yéeni kaay yi déemé jaagi ne te gis nga service da kay bu urgence hôpital Fann ñeen fukk ak juróom ñaar ci ay doomu aadama ñoo xam ne kon laalee nañu dee nee nañu may benn médecin ñetti infirmière benn waajuy liggéey ca mbali ma technicien de surface la ak de feebar bi kay ah fi nekk nii nag ma ngay jayax-jayax yi feebar baa ngi def lu mën naa la wax ndax lu tolloo fukk ci ay doomu aadama dee ñoo dee ci benn semaine la ilaha illallah juróom ca ñoom samedi juróom-ñett de ñu bees ñoo am feebar ba te ñaari fan waaw junni ak ñeent fukk laa wax ni lé ay malade yu bees ñu leen di faj téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett de junni ak ñeent fukk de ci ñu feebar ñu leen di faj benn waa joo xam ne ca Dakar la jógee moo wàlla waa fan ak dante de de juróom-ñaar ci ay kaayu garaaw Sénégal nag fi nekk ni lé passé na kon junni ci ay patient yoo xam ne kon ñu leen di faj waaw cas communautaire moom nañuy nañ leen enquête yéene kaay ne en tout cas dee dee ak ay garaaw yi ni ñuy doy na waar doy na waar docteur Aline Badara Diop waaw nee te xam nga lan moo ci ragal loo mooy xale yi nga xam ne kon ñu ngi ciy dee looloo tiitlu nag direct news de en tout cas kër kilifa diine yi de ñooy violé état d'urgence bi laa la wax maar di taali waaw dama ne la ñooy génnee nit ñi déconfinement forcé le foyer religieux di def nag laa la wax xam nga am na kër kilifa diine yoo xam ne te danañ ne lan moo tax Sud Quotidien ne li wóor ba wóor en tout cas la xew ca Médina Gounass ke acalew na Niassène ca Kaolack waaw day féewale nit ñi de boolewul nit ñi de Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Niass mooy xalif généralu lew na Niassène ci lay si ko yéene waaw nee na nekkoon la nekk ba léegi ni la ndaxte Niassène bi nee kenn mënuñoo tere ci julli ci jumaa laa wax fi nekk ni la dee jënd samay càngaay ngir dem ca kaso ba déet ah waay ba ma waaw nee maa ngi def nag lu ni mel julli ji jumaa par force <laughs> direct news de waaye xoolal ma commerçant li ñu mënul nangu de mooy seeni magasin ñu tëj ko ba noppi deew Discover ak Orca waaw ñu ngi ubbi seeni magasin lii luy ndee en tout cas président Macky Sall de suba lay wax tribune yéene kaay ne njàng meeg njàngale mi tamit de le deux kon classe ya waaye ñi nga xam ne nag maanaam ñoom ñooy acteurs yi ak sénégalais yi dogal boobee d'accord duñu ca dee déedéet xoolal ma la wax ne lañ ci gis kon maar détaal yow gouvernement boo xam ne kon mënoo jëndal yenn ci ay école sacré crédence yi ñuy bindee waaw yow nan nga mënoo ubbee kon école yi lée ba te daara te jumaa yi jàkka yi église yi waa waaw nee nañu dogal bi lée xaru la de xaru de jël xale yóbbu leen école ba xarul la musiba mbaa kumba kon mën naa dikk sauver ay bakkan daal moo gën sauver année blanche foopi lii sax daa yeluwul maanaa quoi yow yaa ngi jël ay jël jaaxal ñëpp terminé yéene kaay ne en tout cas mairie bu Hann Bel-Air de eh, Babacar Mbeng waaw lu tolloon cent soixante quinze millions la dimbalee kon askanam woowee Grand Place de daaw na ñaa di mairie Rufisque de eh, moom tamit dimbali na hôpital Youssou Mbargane jafe-jafe yëpp daanaka faj nañ ko de à quatre-vingt-dix pour cent ah. Pape Jogoy Faye tamit de eh, ci direct news waaw daal ne yi wut lu tolloo juróomi junni ci ay masque dimbalee ko waa ngee xoox waaye ngee xoox ko ga yéene kaay gi nee six communes yéen waaw lu tolloo ci ay kër yoo xam ne de ménage ndimbala nguur gi de yegg na ca ñoom ma ne la commune yéen googee waaw bokk na ci commune yi nga xam ne yu njëkk yu pare seen wàllum séddale très bien dama ne la maire ba góor gi siis de yemu ca ndaxte famille yi nga xam ne kon dañu ne nguur gi du leen dimbali bokk ci critères yi lée góor gi siis da leen a dimbali très bien fra France dégage ci libération yéen kaay waaw nee na génnee leen Abdou Karim Gueye xurum xaax te ubbi nekke laa la wax réew mi ko yéene état d'urgence feek yorinu covid ga ba ca wàllum diaspora waaw ngoone ndooy dee am na loo xam ne kon d'accordu ca dee dëgg la li sénégalais d'accordul kay mooy pér ba dee ubil lay sa ko yéene kay Toussaint Manga ne dama boole woon nañ ca pér laa la wax bindoon nañ ko mu leer Toussaint Manga ca l'observateur ne téeméer ak juróom ñaari million laa la wax la ñu woon ngir wàllum pér neexal gaa yi bokk ba ay di reye nawet beeg liggéeyu tool yeeg béykat bi lu mu doon jàmbaar jàmbaar bu ko neexee tiit nag bu ko neexee tiit de tribune yéene kaay ne ginnaaw sayer sek de waaw hélas ña armateur waaw daal dinay seetal nag de ministre Alioune Ndoye nee na Alioune Ndoye si ñëwul benn licence de pêche nag laa la wax hélas ñaa ne maa la wax lée ñoom sayer sek nag dañoo jàppee chinois yi ne ay étranger te laata chinois doon fi ñëw daan nañu toog ñaari semaines yoo xam ne benn conteneur du fi la wax hélas ñaa ne waaye léegi bëccëg bu ne fanweer ci bi laa grand place de aide à la presse de xaalis ba waa CDEPS nee nañu xaalis boobee dañu koo détourné ar d'Italie la ilaha illallah waa CDEPS ci enquête yéen a kaay ne dama ne un milliard quatre cent aide à la presse xam nga ñaata la ñu séddale deux cent vingt cinq millions maanaam seize sur cent ana xaalis ba patron de presse yi ne danu ne waay waay ministre bi de la communication na wax ku nekk ñaata nga am le quotidien yéen a kaay ne contrat Sénélec ak akil la ah lëfa ne la séddoo bukki la bii bukki bii njuur bii samba bii bukki <laughs> walaay def leen lu leen neex loo leen seddoo bukki bukki bukki bukki bukki bukki bukki bukki bukki gayndee ngi ñëw te pétrole bi kenn mënu koo fàtte parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree mën a la tëjal